al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam aousu billahi min aseytaani irajim bismillahi rahmaani irahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alxalim alxakim bokki daaray xibaada wal xidma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen jéggalu di leen baalu àq te di leen baalu àq dafa si yéene dil siwaat ci boole yi nga xam ne sosoon nañ ko fi daan ko ak faral di waxtaane ci daara ji incha allah dañoo fas yéene wéyalaat liggéey bi gannaaw bu bëree lu mat ñetti simin waaw kay tey kon defe naa fin ko bàyyee woon du sori woon isib xulaawul na bikum di du sori jëg du sori tàmbali ba kon nañ tàmbalee ci boole yu ñuy wax balaaxul balaaxu bañ mu biinu naayo balaaxu bañ mu biinu naayo am na it fatte bi xoo nii ko yaar la ak fa basir baatu fa basir hmm, ak fa basir hu ak fa basir moo tax danaa fa basir xabun fa basir hum yett fa basir hu yett ak fa basir bàjjab samar kon noonu lañ koy incha allah leerale bisimilah boole wi ñuy njëkk dañuy wax ne balaaxu bañ mubiinu naayo fa innama xalaykal balaaxu yaar la galay moo ko am ak raxdi maa xalal rasuli ilal balaaxu ma nga njuugu in xalayka ilal balaaxu ma nga sooree kon ñeent balaaxu yi bañ mubiinu naaye la fa in fa innama xaleykal balaaxu yaar la galaay ak raxdi galaay mooy suuratu ali imran raxdi maa xala rasuli ilal balaaxu ma nga njóobu muy suuratu maayida in xaleyka ilal balaaxu ma nga sooree fattabihooni gay naa ko yaar la galaaye ko am ak taaxee fa basir xabun la fa basir hum fa basir hum la xibal yi lañ koy tënke mooy ximraan ak baraan ak lin si mooy galaay fa basir hum yett la baraan li fa basir rek moom lañ koy tënke luqmaan yaasin jaasiya mooy bu la neexee luqmaan jaal jaasiya fa basir ba job sumar fa basir rek moom ba job sumar la kon ñu jéem a leeral boole yooyu incha allah ba tey boole dafa des boole wi ci yi ma doon jàllale mooy laañ sàdd laam samaana laañ mooy del ji tool del gu ñu tomb sàdd laa laam samaana ka njëkk mooy watu zillu ma nga galaay janaaxa zulli ma nga lisraay mina zulli yaar la lisraay ko am ak sooree fana silla ma nga tanyee illa sallina ma nga ci ca jidaali la salla ma nga ca munaafiqoona wa dullilat ma nga linsaan linsaani laañ sadda laam samaana watu sillu galaay muy suurat al imran janaaxa sulli ma nga lisraay mina zulli yaar la lisraay ak sooree anna zilla ma nga ca taaxee lasal fii lasal liina ma nga ca ma nga ca jidaali lasal la ma nga ca munaafiqoona wa dullilat ma nga linsaani incha allah kon ñu jéem a leeral boole yooyu boole wi njëkk yoon dañoo wax ne balaaxu bañ mu biinu naayo soo demee ca saaru galaay ca isi bu xulaw na bikum ca roba ju njëkk ja da nga ca fekk fa inas la fa xadixta daw wa in tawallaw fa innama xalaykal balaaxu mu biinu tuub ca soo demee it ca saaru rax di ci isi bu afa man yaxlamu ci rubu masalul janna ci da nga ca fekk wa in ma xa ba'dal lasi nahidumu balaaxu wa alayna al xisaabu kooku it xam nga mu biinu tuub ca soo delsee ci saaru njóogu ci isib la tàjj dana ca rubu jàll laaw da nga ca fekk maa xalal rasul ilal balaaxu wala naa yàlla maa tubdoona waa taktumoona soo demee ca saaru sooree ca isib ilay ci nis aw yóbbu xiyoon da ngay fekk fa ina xaradoo fa ma arsalnaaka xalim xafisan in xalayka ilal balaaxu balaaxu yooyu ñooy bañ mu biin ñeent yooyu la laañ sàndalaam samaana yii ma waxit soo demee ca saaru galaay ca isi bu xulaw nabikum ca roba ci jëkk si da nga ci fekk wa tansihul mulka mi man tasaa wutu hissu man tasaa wutu sillu man tasaa bi yadikal xayru soo demee ci saaru lisra yi ci isi bu subhaana ci rubu waxadee rabbuka da nga ci fekk wax wit lahuma janaaha zulli min arrahmati soo del seewaatee ci saaru lisra yi ba tey ci isi bu awalam yarawa ca roba ci jëkk si da nga ci fekk walam yakun lahu waliyun min asulli walam yakun lahu sarikun fi mulki walam yakun lahu waliyun min asulli so demee ca saaru sooree ca isibu ilayhi ca nisfu aw yubqiuna da nga ca fekk watareehum yuxraduuna xale xaasina yansuruuna xale xaasina min watareehum yuxraduuna xale xaasina min azulli yansuruuna door cee topp soo delsee ci saaru taaxee ca isib ba ci roba ju waxantil wujuhu da nga ca fekk law la arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa naxsiya soo dikkee ci xadd samiha ci ci sib euh, jidaali boobu ci euh, saaru jidaali ci sib xat sama ca roba ju jëkk ji da ngay defek inna lisin yu xaddoona allah wa rasulahu ulaayika fi la zallina soo dikkee ci saaru munafiqina ci isib yu sàbbi fi ca robu saraawan da nga ci fekk la yuxrijanna la xasu min hala zall soo demee ci saaru linsaani ci isib xulóox yi ci nisfi laaqusi bi yowmil xiyaamati da nga ci fekk wa daaniyatan xalim tilaaluha wa dullilat xutuufa tadlilan kon day mel ni juróom-ñett yooyu mooy laañ muy del ci tooy laam nga ca topp sàdd muy juróom-ñett yooyu fattabihu nii gaynaago yaar la gaynaago nag mooy yërut googu yi delluwaat ginnaaw rek moo mijaan googu doon yërut gu taq loolu la ñuy tudde gaynaago ci saaru galaay ci isib xalaw na bikum ca roba ci njëkkati da nga ci fekk xulin kuntum tuhibbuna laa fattabihu nii yuhbibkumullahu saaru temps ca isib ni isib ba ca nisib wa maa ajalaka da ngay fekk wa inna rabbakum rahmaanu fattabi'uni wa atiu amri yaar yooyu defe naa ne ñooy eh, fattabi'uni gay naa ko bu ko defee mu des fa basir nee naa la fa basir habun la maanaam baatu fa basir moom juróom-ñaar la waaye nag bu dee fa basir hum yett la di xibali boo demee ci saaru ximraan muy suurat al ximraan ñeen ñi naa ko gàllaay ci si buxlaaw na lakum ca romba jëkk ca da nga fekk wa yaqtuluuna llazina ya'muruuna bil qisti min annaasi fa bassirhum bi azaabin aliim soo demee ci saaru baraan it ci isi bi àllisaam ne na kasiran ca romba jëkk ca da nga ci fekk wala si nekk no yaknisuuna zahaba wal fiddata wala yunfiquunaha fi sabilillahi fa bassirhum bi azaabin aliim soo demee ci saaru linsixaa ci isi bu linsixaa ci isi bu xamma ci rubu isa samaan saqat danga ngay fekk wallaahu a'lamu bimaa yuu'uuna fa bassirhum bi azaabin aliim kon yooyu mooy fa bassirhum yi doon yett bu dee fa bassirhu di yett it njëkk sax fa bassirhu yett moom kooku lu yaaja lañ koy wax luqmaana ko am ak jaasiyati ak jaa jaal muy suuratu yaasin lu yaaja saaru luqmaan ci isib walaatu jaadiloo ca rubu xalil sin utul hilma dangay def rek wa izaa tutlaa alayhi aayaatunaa wallaa mustakbiran ka lam yasmahaa ka anna fii waqran fa bassirhu bi azaabin aliim soo demee ca saaru jaal muy sóoratu yaasin ci isib xul man yarzuqukum ci ruba laa yamliku samawaati wal ard da nga teg fekk innamaa tunziru man ittaba'a zikra wa xashiya rahmaana bil xaybi fa bassirhu bi maxfiratin wa ajrin kariim soo demee it saaru jaasiya ci isi bu xulaw xulaaw la jiitukum ci nisi bu kam tarako da ngay fekk yasmahu ayat lay tulli alay su ma yusrum sakiran ka an lam yasmaha fa basirhu bi hasabin alim ñaari ñett la bu dee fa basir rek nag di bàjjob sumar da ngay dem ca saaru sumar ca isi fana bas naaw ci ruum mooy saamat sa da ngay fekk wala si naj tana bu taaxuuta an yaabuduha waanaa boo illalaahi lahumul busra fa basir xibaadi fa basir xibaadi kon yooyu la kon ñoo ngi taxawlu foofu lu ci jub yàlla la lu ci dëgg nag ngeen jéggal na ko in uridu ila l islaam astatuma tawfiqi illa billahi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu